te combat bu ndaw bi gars yi dinañuy faral di wax ni nu mu mel rek ni la combat yi ci des di mel may Dieng ak ki nga xam ne mooy Thiatou Colobane Thiatou Colobane loolu loolu fas yéene may Dieng le jour jour. di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay bu baax di ñaanal sama papa bu mu tëdd yàlla mu gën a gën ko amal ko waaw. li wax ni kii ancien nit la kii bu ko mu la jàppee naa war a jël xale bu ngay laaj. ñu ñëwaat sax bu mu tëdd. ñëw pour seen janvier ñu ne ko amee xale bu koy laaj xale bu koy laaj. nga ne mel nañ kay dafa màgg. ancien nit la boo ko xoolee xam ko. ancien nit la. wala ancien nit. ancien nit ak ancien nit la. yelli on jaajëfal dina sa waay ne la ancien nit la dégg nga xaw ma nag luy ancien nit xaw ma ndax di nga métier xaw ma doo métier mais li nga juub fii rëy na père avant tout balaa ma dugg ci programme bi dama nuyu ñu nekk fii yëpp sa mbokku mbëri sa mbokku sa mbokku mbëri maa leen nuyu quoi. yow père kii dafa juub quoi. man maa ngi mbëru faramaare nii man maa ngi mbëru faramaare maa ngi mbëru waay set di doomu mère Diaga avant tout maa ngi maa ngi ñaanal sama papa yàlla yërëm ko di wax Père Balla Gaye war na fekke lii lépp moom la Père Balla war na fekke lii kii daa comprendre rek man bu comprendre noonu na moom ñu ànd moom ñoo koy naan Palla quoi mais loolu yàgg na si man nangu nekk Palla. wa xoolal combat bi dama si woo waalo tey bu arbitre bi sifflé laa wax. kii bu arbitre doy. per maa ngi man per Balla moo ma tàggat ma toll nii. di wax ni combat ma jël ko sax Balla Gaye 2 sax moom moo tax ma jël combat bi mais bu doon Balla Gaye yor bu bëri kii sax mais xëy na lamb ma jël la mais woo ko jël mais woo ko woon sax jël ndax dafa benn palmarès te ñuy ànd ak yow ñoom ñoom ñoo la jay mais bi léegi le 16 janvier ngay comprendre. le 16 ngay comprendre. jërëjëf combat bi maa ngi si woo waa Waalo yëpp di si woo waa Jàmm bi waa Sam Sam waa Géejawaay ah di si woo tamit waa 100 pour cent Géejawaay di wax ni combat bi combat waa Géejawaay di tamit ñu ma àndal ku si mel tamit Youssou maa ngi koy ñaanal ndam di ko ñaanal Balla Gaye 2 sama mag maa ngi koy ñaanal ndam yow après ngay comprendre. après ngay comprendre ok. jaa ngeen def yëpp lu ma leen. yëpp lu ma leen ñoom ñaar jaa ngeen def. waaye caat looy commandé noonu distingué se distingue par la qualité ñoom tamit digg ci. tey waa waa Colobane tàccu Yàlla fecc bu yàgg nga fi